comme yeneen jàngalekat yu nekk ci yeneen région yu Sénégal nuñ ko defee jàngalekat yu nekk ci Ziguinchor demoon nañu wuy ji ci école yi bu ñu sukkandikoo ci syndicaliste bi lee waaw ñun kontaan nañu trop am nañu moment de satisfaction parce que boo seetee ñun jàngalekat yi saa yu ñu nguur gi war ak dañuy dem uyu teew fekkee bu ñu demee tour quelques écoles ñu gis suñu jàngalekat yi ñëw nañu waaye aussi ñu woo suñu naataange yu nekk si zone yeneen zone rural ak yeneen zone éloignée ñu wax ñu aussi ni équipe pédagogique ñëpp ils étaient sur place aussi waaye jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci lekkool yi nga xamante ne ba tey am na ndox ak tamit ñàkk teewaayu protocole sanitaire jaaxal na torop secrétaire général bu CELS authentique bu Ziguinchor. waaw njaxare la njaxare parce que même bu fekkee am na protocole sanitaire bu nga xam ne génnee nañ ko te révisé nañ ko par rapport avant parce que bu njëkk dañ ñoom ne benn élève portable table léegi na nañu mun nañu sax dem ba si ñaari élèves mais dañ sur protocole sanitaire boobu dafa am lu ñuy wax max. mu am lu ñu ne gel mu am aussi lavage de main mais yooyu yëpp tegaguñu ko sur la table parce que lu ñu mayoon école yi jeex na parce que pour groupe élève yi doom def examen rek la mais loolu rek toyul parce que école dafa doon environnement classe école il faut que nous fa classe il faut que nous classe donc il va falloir que nous pomper euh, aussi mais aussi école yu nga ñu ngi ndox ba légui amna école yu nga ñu ngi yor ay ñaax mbass bi daw ñu tej classe yi. ba taxna xalé ci classe intermédiaire té la ñu classe na niveau. andi galancor xam nga xam nga ren rek

xale yooyu pour que ñu mun a am niveau classe bu ñuy doog a nekk nii pour mun a commencer programme bu ren bi. kilifa yi yor wàllum njàng mi ak njàngale mi ñaax nañ leen ngir ñu mën a jël seen matuwaay ngir ñu mën a door jàng ji le 12 novembre comme njiitu réew mi nu mu ko bëggee.